bisimilah rahmaani rahim alhamdulillah asalaamualeykum mbokku jullit yi asalaamualeykum mbokku internet yi téléspectateurs yi yi safoo di seetaan la TMS TV ñuy am mbégte nag ak kontaante di ñëw ci seen deuxième numéro seen émission boobu ñuy wax leerlu muy laaj ak tontu. di amaan mbégte nag di ci dalal suñu borom xam-xam bi di kenn ci kër gi euh, di imam di oustaz. muy euh, Alaaji kër Dieye kenn dootu ko présenté nag gannaaw bu ñu nuyoo ki nga xam ne nii tey moom mooy le PDG de la TMS TV di suñu sëriñ. Mhm. muy Alaaji Thierno Moulay Sow oustaz. Mhm. ñu ngi lay dalalaat si émission. waaw jërëjëf doyen Abdal Aziz ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy suivre euh, TMS TV ci émission bii di leerlu di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi comme ni nga ko waxee sunu sëriñ. sunu PDG muy Alxaaj Thierno Moule saw ñu koy nuyu di ko ziyaara di ko ndokkale ci koor gi di ndokkale ñëpp di la sant di la gërëm. jërëjëf oustaz xam nga première émission bi ñu ngi wax waxtaanee woon julli. Mm. vraiment ni ñi kontaan trop. ci mm. leer yi nga indi woon. Mm. maanaam euh, ni nga leerale woon daal julli. Mm-hmm. Euh, waaye nag euh, julli xam nga ne dafa am luy jiitu. maanaam set maanaam laab. laab nag buñ ko waxee. sangu farata janaba mhm. euh, euh, maanaam njàpp tiim lépp a ngi ci mhm. tey loolu la ñuy waxtaanee mhm. alors ñu war a commencer nag par njàpp mu am ay farata oustaz nga indi ñu si ay leeral waaw doyen Abdal Aziz njàpp dafa doon loo xam ne lu am solo la tabaarakallaahu comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee laa salaata man laa wudu alahu nee na amul julli ñu ni ko kan mu ne mooy ka nga xam ni njàppul ki nga xam ne amul jàpp kooku amul julli tabaarakallaahu kon jullit saa yu jógee mhm. jëm ci julli dafa war a jàpp comme ni ko yàlla waxee ci alquran yaa ayuha allazina amanu iza qumtum ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal kaabayni yàlla nee na yéen yi nga xam ni yéen a gëm boo leen jugatee jëm ci julli yàlla nee na na ngeen raxas seen kanam ak seeni loxo ba ci conco yi waaye na ngeen masaa seen bopp ak seeni tànk ba ci dojor yi Mhm. foofu nag la borom xam-xam yi amee wuute mhm. ci tànk dañ ko war a masaa wala dañ ko war a raxas mhm. ndax wam saxu bi nga xam ne moom la yàlla wax ndax masaa ak raxas du benn bu dee raxas sa da ngay am ndox bomb bomb bu baax loolu mooy loolu mooy raxas bu dee masa nag dangay tooyal sa loxo ba mu tooy nii ak ndox rek nga raay léegi borom xam-xam yi nag foofu la ñu wuutee ni comme yàlla masaa la wax ndax tànk dañ ko war a raxas wala ñu war ko wala dañ ko war a masaa mhm. ba am na ñoo xam ne tey bu ñuy jàpp du ñu sotti ndox ci seen tànk di bomb mhm. dañu dañuy tooyal seen loxo rek raay seen tànk ñooñu foofu foofu foofu lañ ko teg mhm. mu mel ni kon njàpp moom tabaarakallaahu dafa doon loo xam ne ala kulli xaal nit ki daf ko war a def ndax moom la yàlla santaane ñett mooy tax ñu may la nga bañ a jàpp te julli ñett te boo jàppul da ngay tiim ñett yi nga xam ne moom lañ la may nga bañ a jàpp mooy ragal nga boo jàppee mhm. feebar dab la ci mhm. maanaam am nga kii boo xam ne tey boo jàppee mën naa infecté waaw laa yukallifullaaha nafsan illaa wusaha yàlla tegul kenn lum mënul mhm. te yuridu yuridu bikumullaahu yusra wala yuridu bikumul usra yàlla nee na dama bëgg ci yéen lu jàppandi mais bëgguma lu jafe ci yéen bëgguma lu metti ci yéen kon toujours da leen ko defee ni ngeen ko mane kon man na am na ñoo xam ne dañoo yore sedd am na période boo xam ne bu ñu ko jàppee ndox ma mën na leen a sonal mën na leen a dikkee feebar mhm. kooku may nañ ko mu bañ a jàpp mu tiim mhm. ak ki nga xam ne moo moo ragal waxtu wi génn mhm. par exemple ñoo ngi julli timis timis dafa gàtt allahu akbar asalaamaaleykum la ragal nga waxtu wi génn fekk nga ñuy fekk nga ñuy taxawal timis mën ngaa dem tiim tabaarakallaahu ñëw bokk ci julli ak ki nga xam ne moo ñàkk ndox ñett ñi daal lañu may ñu ñu tiim bañ a jàpp waaw Moussa am na foo xam dañ fay taxaw tuuti euh, maanaam dafay relancer waat julli parce que wax nga ne maanaam ki ragal tardé julli bi waaw ki nga xam ne nii nag par exemple tardé julli boobu laa bëgg ñu indi ci ay leeral parce que defe naa ne dañ naan waxtu bi dañ koy waajal xam nga boo melee ni man toog nekk ci li la neex hmm. ba ñu taxawal julli nga xam ne fii jàpp du fi xëj hmm. nga dem rek daal di daal di daal di tiim pour ma am julli hmm. loolu xam naa ne am na lu si islam wax waa xam nga xam nga loolu day da ci day day toll foo xam ne nag wallaahu aalam yàlla rek mooy xam. Mhm. mais mais mais ragal waxtu wi génn comme ragal waxtu wi génn la ñu wax. waaw la nga nekkoon kenn kenn kenn cité wu ko. kenn cité wul waaw boo nekkee ci nangam wala nga nekk ci nangam dañ ne rek ragal waxtu wi génn. la mais waxtu nag moom dañ koy waaj. Mhm. waxtu dañ koy waaj. waaw ni ñuy waajee ni ngay waajee sangu. Mhm. solu pour pour war a solu génn. xam ne heure bii nga war a génn da ngaa bañ a tardé kon heure bii nga war a génn. waxtu yi itam bu dee ñëw hmm. bu waxtu wi desee tuuti da war a dem nga waaj comme ni nga war a waaje hmm. Hmm. parce que am na ñoo xam ne tey Serigne Hadj Malick nee na bari na ñoo xam ne tey euh, julli nanu ba sax ay bejjaaw mosu ñoo matalal yàlla benn julli bejjaaw nanu mais mosu ñoo matalal yàlla benn julli maanaam julli nañ ba màgget li ko waral mooy nanuy waaje moo baaxul am na ñoo xam ne dañuy dem diggante bu gàtt ñu bëgg fee tuur ndox bëgg fee ferlu bëgg fee jàpp bëgg fee julli nee na nag boo tuuree ndox te ferlu bi nga ferlu baaxul mhm. ferlu bi nga ferlu baaxul mën ngaa jàpp ba ñëw di julli booy julli léegi léegi la desoon te waroon a génn nag mhm. booy def ay mouvement dafay génn moo tax ñu ni nit bu demee tuur ndox ba pare mhm. balaa ferlu na jóg jaabante na jóg jaabante ci toilette bi fi muy tuure ndox mhm. na jóg jaabante tuuti bu jaabantee tuuti dina am dina am dina am la nga xam ne moo tagoon dafay génn bu génnee nag mu soog a wisu tabaarakallahu waaye cité nag wax dëgg yàlla dëgg la boo nekkee ci lii wala boo nekkee ci lii dëgg la bi génn rek la dëgg la loolu dinañ ci ñëw mais dañuy damay dëgg tamit ñu ne maanaam da ngay am fas yi fas yéene bi maanaam yow yéene bi ngay jëkk a jiital waaw bu dee bu dee faratay njàpp nga waaw bu dee faratay njàpp nga wax mhm. faratay njàpp bi ci jiitu yéene la mhm. parce que innamal amalu bi niyati jaamu yàlla booy def yéene ci jiitu mhm. jaamu yàlla booy def yéene ci jiitu dëgg la booy booy booy booy jàpp par exemple boo raxasee sa loxo ba ca tikki jara yi gallax ndiku ñetti yoon sarax ndiku ñetti yoon fiiru ñetti yoon ngay sëlmu léegi nag bala ngaa sëlmu foofu ngay dugalee sa yéene Ah, bala ngay sëlmu ngay dugal sa yére bala ngay sëlmu bu la neexee nga wax ko bu la neexee nga fas ko ci sa xol mhm. mais ci booy sëlmu mhm. ca nga naa boo sottee ndox mi pour sëlmu nag maa ngi fas yéene jàpp njàpp mu sel hmm. moo xam da nga koy wax ci sa làmmeñ moo mhm. xam da koy fas sa parce que yéene mën nañ wax mën nañ ko fas aussi voilà léegi yéene moo jiitu léegi bu yéene jàllee kii moo ci topp sëlmu farata bu sël mu jàllee mhm. raxas sa loxo ba fii ci coñco yi ni ko alxuraan tudde ñaata ñetti yoon farata la waaw raxas raxas bi farata la mhm. masaa bopp dem waaw masaa dem waaw farata la mhm. euh, raxas sa tànk ba ci dojor yi nopp yi raxas la wala euh, masa nopp du farata sunna ah, ah, masaa dem farata la raxas sa tànk ba ci ba dojor yi mooy mooy ñaar yooyu génn nii waaw ci sa tànk loolu aussi farata la bomb farata la gaaw farata la. Mhm. juróom-ñaar yooyu mooy mooy mooy mooy farata njàpp. très bien waaw euh, oustaz léegi nag ñu ñëw ci maanaam ndox mi quantité bi. Mhm. ndax dafa am quantité bu ñu ci taamu maanaam boo xam benn litre parce que dama dégg ñu naan lii na pour jàpp ñu naan wala lii néew na pour jàpp. Mhm. bi nan la war a toll oustaz. xam nga quantité ndox amu ci solo. parce que jàpp jàpp li li li ñu li ñu gën a taamu mooy mooy mooy ñett mooy ñett ñett. raxas bu njëkk bi. mooy farata bi ci des sunna la bi ci des ngëneel la. ñett-ñett yi moo gën mhm. mais ku mu neex nga nga yor tuuti ndox jàpp-jàpp benn benn ah jàpp benn benn bi wér na waaw waaw ah booy gis nga nit buy sangu farata waaw bu jàppee benn benn mhm. bu ci yéenee julli waale dina ci mën a julli voilà loolu dinañ ci ñëw léegi mais dafa am solo te maanaam jàpp benn benn jàpp benn benn la jàpp kon quantité ndox mi mhm. euh, da ngay xool rek li nga xam ne li nga xam ni moo la moo la mën a jàppal waaw li nga xam ne moo la mën a jàppal nga xam ne fi nga war a raxas mhm. di nga am ndox mu doy pour raxas ko mhm. bu dee ndox bu dee ndox mi nga am par exemple genn wàllu litre la mhm. nga xam ne bu dee raxas mu doo mën a raxas ñetti yoon nga jàpp benn benn ah. wala nga jàpp ñaar ñaar jàpp ñeent ñeent daal la ñu tere maanaam ñeenti ñeent daal lañ tere voilà mais bu dee benn baax na bu dee ñaar baax na bu dee ñett baax na bu dee ñaar baax na bu dee ñett ñett baax na yëpp a baax yëpp a mën a julli waaw defe naa ne loolu sànq am na loo xam ne sax xaw nga ci tontu maanaam bu fekkee ne da nga am maanaam wéradi xam ne ni ba boo jàppee na la lor waaye léeg aussi tamit di soo xam ne ni dafa am foo xam dañ ko bandaas mm-hmm. te war na koo jàpp yooyu boobu daa lan lay def maanaam bànd loxo bi walla daal bopp bi wala foo xam ne daal ndox du fa dem waaw fi nga xam ne dañ koo bànd waaw te nga waroon koo raxas mm-hmm. foofu dañ lay may nga raay ci kaw band bi ah d' accord da ngay tooyal sa loxo nga raay ci kaw. nga raay ci noonu rek waaw nga raay ko ci kaw comme genre massa. voilà da ngay ah, massa ci kaw très bien oustaz lañ la ñuy wax yeesal njàpp maanaam dañuy dégg leen ñu naan demal yeesal sa njàpp wala maa ngi dem yeesal sama njàpp. Mm-hmm. waaw loolu loolu lan lañ ci jublu. bu dee yeesal njàpp mooy koo xam ni mooy koo xam ni amoo koo xam ni da ngaa da ngaa jàppoon mais sa njàpp tojub. waaw maanaam jàppoon nga ba julli suba mais mais wóor na la ni fii ba tisbaar gi nii. Mm-hmm. ngay julli. waaw maanaam sa jàpp tojul kooku bu la neexee man ngaa dem yeesal sa njàpp mhm. mais ki jàppam toj moom du wax maa ngi yeesal danaan maa ngi jàpp maanaam bu fekkee óolu nga daal sa njàpp ma nga jàppoon daal jarul nga sa njàpp ma nga jàppoon jàpp suba mhm. mhm. mën nga cee julli ba gee bu tojul jàpp suba mën nga cee julli ba gee bu tojul bu la neexee aussi mën naa bañ a toj mais waxtu wu jot nga dem yeesalaat ko bu la neexee mu tojul mais nag bu fekkee ne nag sa njàpp dafa toj dooni maa ngi yeesal njàpp da nga naan maa ngi fas yéenee jàpp njàpp mu sell dëgg la waaw bu boobaa da ngay jàppi moom yeesal da ngay jàpp mu ngoog euh, oustaz ci ñëw ci tiim waaw tiim dama gis léeg-léeg ñii dañuy tiime xeer xeeru tiim yooyu mooy xeeru géej gi. Mm-hmm. ñii dama gis ñuy tiimee ci mur. Mm-hmm. ñii dañuy tiime ci suuf ban la ci lislaam santaane. waaw xam nga xam nga euh, doyen Abdel Aziz. Mm-hmm. bu fekkee ni bu fekkee ni dangay ngay tiim. waaw ñett rek la ñu mën a tiimee. rek la mën a tiime yàlla nag bi mu bi mu bi mu bi mu tudd moom yàlla mooy saidan tayyiban saidan tayyiban mooy pàkk bu laab pàkk bu laab mooy maanaam suuf su laab hmm. suuf su laab mën nañ ca tiim ñett la ñuy tiimee pàkk bu laab mooy suuf su laab hmm. lu nu wulli dañ ciy tiim ak xeeru dënnu hmm. ci ñett yooyu la ñuy tiime maanaam li ñu mënta tiime mooy loo xam ne doomu aadamaa ko defar comme ay mur mur kenn du ci tiim <laughs> karo kenn du ci tiim lu ñu defar a kenn du ci tiim sijaada yi ñu ràbb kenn du ci tiim mukket yi kenn du ci tiim table ji mënoo cee tiim maanaam suuf su laab lu mel ni tey boo demee ca tefes ga ne bëgg a tiim da ngay ñëw rek tiim wala ci ëtt rek wala ci ëtt ci bayaal voilà na suuf si laab na suuf si wala wala lu nu wulli der boo xam ne dañ kaa wulli mhm. xam nga der bu ñu wulli waaw waaw der mooy ñu liggéey ba pare voilà mhm. der bu ñu wulli ba pare mhm. der boobu man nga cee tiim mm. ak xeeru tiimukaay ñett yooyu rek la ñuy tiimee mais lu mm. dul ñett yooyu kenn du ci tiim mm. ah d'accord léegi nag euh, jàpp nga ba pare maanaam diggante bi ngay julli. Hmm. Euh, lan moo mun a yàq njàpp bi lan nga xam ne daal sentir nga ne lii war na mun a yàq sama njàpp. waa li nga xam ne nawaaxidul wudu moom. Mhm. yiy yàq njàpp. Mhm. Euh, ba ca jiitu mooy al bawlu. Mhm. bawlu mooy mooy tuur ndox. nga jàpp ba ku jàpp ba pare dem tuur ndox. wala ku jàpp ba pare dem àll. kooku dafay dafay yàq njàppam. bokk na ci liy yàq njàpp ay nelaw. a ah, nelaw. nelaw yu diis nelaw dafa am ñeenti nelaw. Mhm. dafa am nelaw yu gàtt. te mooy yi nga xam da ngay xaw a dajjantu rek. waaw loolu mooy nelaw yu gàtt. te woyof dafa am nelaw yu gàtt te diis. am nelaw yu gudd te woyof am nelaw yu gudd te diis. Mhm. ay nelaw bu guddee te diis maanaam toog nga fii di nelaw. fii nii fii nii ci studio bi. Mhm. maanaam tourné maanaam tourné nañ yow toog nga ci studio bi. ñu tourné émission ba génn ba dem te yow yëgoo ni yow tourné nan ba génn dem. <laughs> yow sa njàpp toj na. parce que say nelaw dafa diis. te xamoo lu xew ci nelaw yi. voilà moo xam nelaw yu gudd la nag moo xam nelaw yu gàtt. moo xam ne yàgg na moo xam yàggul. mais ba boo demee ba yëg ni yow yëgatoo dara ba def nañ fi dara ba fayal la lam bi delloo la bunt bi te yëgoo ko. Mhm. kooku yow sa njàpp yi. waaye daal boo xawee gëm gëm gëm. xaw a for nelaw non boo xamee for nelaw li naan for nelaw rek def ni. kooku mhm. du yàq sa njàpp parce que nelaw yu. bu fekkee nag dafa mhm. yàgg mhm. yaa ngi yaa ngi nelaw mais mais mais mais lu waaye wax yaa ngi koy dégg mais yow xam nga ne yaa ngi nelaw mhm. bu fekkee nelaw yooyu dafa yàgg yooyu sa yàqul sa njàpp mais danoo sopp nga jàppiwaat bu dee nag da ngaa dajant nii rek yow waat kooku nag moom yàqul sa njàpp mooy nelaw yu gàtt te woyof voilà ñu ñëw ci ci beneen bi mooy des na des na waaw des na la maanaam maanaam nga jël sa loxo teg ko jigéen wala jigéen jël loxoom teg ko góor ah déet oustaz loolu toj na njàpp toj na njàpp de in qasada ah, lazata in qasada lazata mhm. wa wajadaha bu fekkee ni teg bi nga teg sa loxo ci kaw ku jigéen ki mbaggam mm. wala foo ko teg ci moom rek teg bi nga teg sa loxo ci kawam donte sa soxna la mm. da nga caa jublu woon da caa jublu woon ma teg ko ci ndax ma am bànneex waa bu fekkee jubloo ci loolu nag waa déglu ma ñëw bu fekkee ne da nga ko caa teg jublu ca am bànneex <laughs> mhm. boo ca amee bànneex ak boo ca amul bànneex même boo yëgul dara sax boo ca amee bànneex ak boo ko ca amul sa njàpp toñ na bu dee danga caa jublu woon am bànneex hmm. parce que intention ba bu fekkee ni da kaa jub da kaa da nga kaa jublu woon am ca bànneex nga teg ko sa loxo te mujjoo caa am bànneex ba hmm. tey sa njàpp toj na ndax intention baa tax bu fekkee ne nag jublu woo ca am jublu woo ca am bànneex mais ba nga ko ca tegee yëg nga dara am nga bànneex sa njàpp toj na hmm. bu dee woo ca bànneex amoo ca bànneex nag hmm. boobu sa njàpp tojul loolu leer na voilà <laughs> loolu nga leeral am na solo trop hmm. oustaz ñu ñëw nag naa ci sangu farata ñu ne sangu janaaba ndax benn la waaw sangu farata xam nga xam nga janaaba mooy mooy mooy mooy mooy mooy waaw xam nga nit ñi ci appellation rek waaw ci appellation ci bi la rek ci mhm. appellation bee wuute rek mais benn mooy moom moom la neex mooy li mhm. yàlla ne mhm. bu fekkee a am janaaba waaw in kuntum junuban janaaba mooy li nga génne mooy li nga génne waaw waaw waaw mais bu fekkee lu la tax la du jar ngay sangu ah d'accord mais bu fekkee ni lu la génne la ñi nga xam ne ñi nga xam ne ki nga xam ne daal moo war a sangu farata ci gàttal. waaw mu ngoog mooy mooy jigéen bi nga xam ni. waaw dafa gis règle ba règle am dog kooku day mm-hmm. sangu farata. Mm-hmm. jigéen bi nga xam ni dafa wasin mm-hmm. ba dereetu wasinam dagg kooku day sangu ji farata góor goo xam ne dafa génne mën nuyu waaw kooku day sangu ji farata ñooñ ñoo war a sangu farata ak koo xam ni da ngay sëy donte donte donte jote donte jotoo génne mën niyu waaw donte jotoo génne mën niyu mhm. mais jëmmi sëy ba moom am waaw kooku da ngay sangu farata da ngay sangu farata waaw ah d'accord alors sangu farata boobu oustaz nga nga comme ni nga def ci ju ci njàpp mi rek mhm. maanaam euh, dañ ne da ngay def euh, maanaam da ngay dugal yéene bi d'abord mhm. moom ngay yéene après boo defee yéene bi nag nga doog a commencer par njàpp benn waaw loolu lañ sangu farata sangu farata ñetti farata rek la am mooy yéene. waaw yéene bi ngay yéene. waaw ak euh, sa yaram fépp tooy. Mhm. nga boole ko di bomb. sa yaram fépp tooy xanaa am na fu njëkkee ak fu ñu mujjee oustaz loolu kay. waaw waaw waaw yéen euh, farata laa lay wax. waaw waaw farata yi laa lay wax ni. Mhm. sangu farata ñetti ñetti yéene yooyu ñetti mhm. euh, waaw yëg boo jugoon tey. am am am janaaba. dem ci géej gi. dugg ci géej gi waaw. maanaam bomb ba baax na xam nga. ak noo sangoo rek. nga ubbi chance bi bomb ak noo ko bombee baax na. Mhm. xam nga sangu. léegi toftale bi nag maanaam loo gis dafa am ngëneel. voilà très bien loolu lañ bëggoon a ngay dugg waaw toftale bi ngëneel ngëneel yi la. Mhm. mooy par exemple boo tegee boo tegee siwo bi ngay sangoo farata. Mhm. bu la neexee nag mën nga ko def ci sas. ci sas sas mën nga cee sangu farata. wala yeneen mais tey boo tegee siwo bi nga xam ni moom ngay sangoo farata. da nga koy tegee ndeyjoor. ah ndey joor nga koy tegee. bu fekkee ne amul tëjukaay. très bien tayaamunul ina in kaana mu tas si an <laughs> bu fekkee ne amul tëjukaay da nga koy tegee sa côté nday joor. Mm-hmm. boo ko tegee côté nday joor. nii ngay def da ngay dëngal. dangay ngay pantal waaw da nga koy dëngal. waaw mu ñëw fii sa loxo. waaw nga teg raxas sa loxo ba mu set. Mm-hmm. pantalaat

boobaa jarul pantal si siwo nga ko bàyyi noonu. parce que loxoy set na sa loxo set na. très bien da ngay dugal da ngay dugal sa loxo da ngay bu fekkee amoo pot bu la neexee nga wut pot. dëgg la boo tànkee. Mhm. nga comme xubbee mooy nga commencé fii ci sa jumbux fii. Mhm, mhm. ba ci sa wóom. ci kanam ak ci ginnaaw. dëgg la mais nag place sobe bi doo ko raxasagum. ah place sobe bi doo ko raxasagum. waaw da ngay fii li tàmbale fii ci jumbox bi. waaw ngay raxas. ba ci oom yi ba mu set. Mm-hmm. Mm-hmm. ci kanam ak ci ginnaaw fii li tàmbalee ci ndigg li wàcc. Mm-hmm. ba ci ba ci oustaz ñu bari nag dañu réeree mbir dañ foogoon ne place bi am sobe da nga koy raxas. ba boo boo xubbee koo. waaw raxas fii ba pare. waaw place sobe bi booy raxas place sobe bi nag ci nga yéene. comme nañ def ca booy sëlmu rek ca ca njàpp ma. booy raxas fi sobe bi fi sobe bi génne waaw place sobe bi tey muy mm-hmm. muy muy awra muy awra bi moo xam góor moo xam jigéen mm-hmm. bu koy raxas foofa la yéenee nag mais da ngay mm-hmm. xubbeeku ba pare nag soo ko raxas boo koy raxas nag bala nga koo raxas nga fas maa ngi fas yéenee yëkkati toj mu rëy wala maa ngi fas yéenee sangu farata yaa ngi dégg léegi boo boo yéenee raxas place sobe bi ba pare nag da ngay jàpp benn benn fi ne amatoo sobe dëgg la da ngay jàpp benn benn jàpp benn benn comme ni ma ko waxee sànq mhm. raxas sa loxo yi ba fii benn yoon mhm. galax benn yoon mhm. sarax ndiku benn yoon fiiru benn yoon sëlmu benn yoon raxas sa loxo ba fii benn yoon massa bo dem masaa dikk bu la neexee nga raxas say tànk bu la neexee nga bàyyi ba après hmm. yaa ngi dégg léegi boo jàpp boo boo kiiwee ba pare boo jàppoo benn benn ba pare nii ngay def sa loxo nii dugal ko ci ndox mi yaa ngi dégg. Mhm. boo ko dugalee ci ndox mi nii. Mhm. danga koy sippiwaat nii. Mhm. loxo yi ni mu defee nii da nga koy crochet. xoolal boo ko crochet nii. fii ngay teg sa loxo fii ci ndong gi fii. fii ngay teg sa loxo def nii mu ñëw. mu wàcc def nii mu ñëw fii. yaa ngi dégg. parce que nit ki li nga xam ne mooy waral sangu farata toujours ci moom. liy waral sangu farata toujours ci moom. day day ubbi ay ay ay nu xam na ko tubaab yi di waxe fi karaw yi di. maanaam karaw boobu poor yi quoi poor yi. voilà maanaam daf koy ubbi. <laughs> te loolu boo jëlee ndox mi rek xëpp ko ci. Mhm. maanaam mën naa mën na laa mën na laa indil méttitu bopp. Mhm. wala mu jural la beneen feebar parce que mhm. ndox mi mën naa dugg foo xam ne du place am. kon kon da dugal sa loxo ci ndox mi def ko nii. boo defee nii moo koy tëj. ba mu yëf si jëbi rek. nga arrêté waaw ci karaw gi rek ci karaw gi rek maanaam karaw gi rek gi ci dox gi fi karaw gi yam waaw nga ñëwaat fii mhm. ba ci sax-saxu karaw gi fii mhm. fii mhm. léegi léegi léegi léegi léegi léegi pare nga léegi léegi nag da ngay da ngay tànk ndox boo defee loolu ba pare léegi da ngay tànk ndox comme comme tëj nga poor yi ba pare waaw dangay ngay tànk ndox boo tànkee ndox nga raxas côté bii côté droite bi nii côté droite bi waaw waaw fii ci digg côté ndeyjoor bi waaw voilà da koy da ngay da ngay xàjj nag ba ndox mi ba ndox mi laal deru bopp bi ba ndox mi laalu deru bopp bi sa sangu baaxul Hmm. da ngay nii ba ndox mi laal deru bopp bi. Hmm. nga ñëw côté gauche. Hmm. boo xàjjee. raxas maanaam da raxas fii mais doo wàcc. déedéet fii rek ngay raxas fii rek yam ci karaw ci karaw gi rek léegi nag nga ñëw côté gauche bi. waaw def noonu bu côté gauche bi paree nga jël digg bi. nga jël digg bi. nga raxas maanaam après nag nga jël ndox raxas ba mu wóor la ni daal bo. bopp bi sedd deru deru bopp bi. mooy na tooy na xip. léegi nag après nga nga tànk ndox ni ci sa ci sa loxo. dëpp ci sa ci sa nopp. Ah. da nga ciy dëpp sa bu mu ci dugg de lii kenn du ko def lii ah, waaw boo defee dafay dugg ci biir kenn ko def nii ngay def nii maanaam nopp mooy fekk si ndox mi voilà boo defee nii nag nii ngay def waaw yaa ngi dégg boo defee nii mhm. da ngay def nii rek defaat nii maanaam doo def nii bàyyi mu dem nii ngay def nii mhm. léegi nag après nga jël sa loxo dugal fii mhm. fii def nii raxas raxas yii yëpp da koy lijjanti bu fekkee sa nopp daa koto mu mel ni sam bos donc yii yëpp da nga koy lijjanti xam nga ci ginnaaw nopp beeg yii yëpp ba mu set nga jël nopp bi defar noonu. Mhm. boo paree nga fii. gaaw fii. waaw moom ngay raxas mu waaj mhm. ci kanam ak ci ginnaaw. Mhm. boo paree nag nga xaaj sa yaram ba ci jumbux bi. xam nga bi ngay xobbeeku sa jumbux nga. tàmbalee waaw jumbux gi waaw. bi ngay xobbeeku sa jumbux nga tàmbalee woon kon li dalee ci jumbux bi ba ci oom bi raxasoon nga ko. da xaaj sa yaram nag ba ci jumbux bi. raxas raxas raxas ci kanam ak ci ginnaaw indiwaale loxo bi ba fii. bi ngay jàpp fii nga yemoon. waaw voilà. après côté gauche bi nga def noonu après nga kii digg bi mais na kanam ak ginnaaw fépp la nga koy bomb. Mm-hmm. bu dee fu sa loxo jotul. Mm-hmm. da ngay wut benn morso bu set. Mm-hmm. wala benn njàmpe bu set boo xam ne amul saabu amul dara nga dugal ko ci ndox mi. boo paree nag jàpp fii jàpp bomb. bomb waaw parce que gis naa ci benn image ñu ne mun nga jël xaw ma sarbet xaw ma la ma ne ah. sarbet na set rek. ah na set na set rek na bañ am sobe. Mm. na set rek bu dee sarbet ak morceau njàmpeek sama mbaxane rek sama mbaxane mi <laughs> lépp baax na waa waaye waaye na set rek bu ko defee nga bomb nga bomb ba sa yaram ba sa yaram bi yëpp tooy mm, mm, mm. léegi nag boo ñëwee ci suuf ci om bi ngay tàmbalee waaw ba ci dojor yi bu fekkee bi ngay jàpp da nga sa tànk ba ci dojor yi om bi mooy genou genou bi waaw léegi da ci om bi nag ñëw ba ci dojor yi bu fekkee bi ngay jàpp nag jotoo woon a raxas sa tànk mm-hmm. da ngay commencé da ngay commencé ci oom bi. Mhm. ba ci dojor yi nga raxas nga tàmbale nga tàmbale comme comme booy jàpp ci baaraam bu sew bi. Mhm. raxas mu yéeg. Mhm. comprendre nga raxas baaraam bu sew bi mu yéeg. léegi nga tàmbale ci genou bi ba ci ome bi. ba ba ci ba ci ba ci ba ci dojor yi. nga wàcce ko léegi nag nga def tànku ndeyjoor def tànku càmmoñ ba pare nga jël ndox mi xëppoo ko bu la neexee. nga sotti yëpp daal waaw nga sottee ko bu la neexee. très waaw la neexee waaw xam nga loolu oustaz ki yor siwo bi la. mais léegi nga ñëwaat nag ci ki nga xam ne nii maanaam dafa dem ci biir géej gi euh, maanaam ci dex gi wala ci géej gi pour sangu sangu sangu farata kooku est-ce que est-ce que yooyu yëpp. wa ki nga xam ne mooy moo dem ci géej dafa mm-hmm. sangu farata. Mm-hmm. benn affaire rek la la la war a def. Mm-hmm. mooy moom day jiital yéeneem. waaw. moom day jiital yéeneem mhm. bu jiitalee yéeneem bu sooboo mm. na raxas euh, place sobe beeg yu mel noonu na ko raxas bu paree mu bomb yaram fexe yaram yépp tooy mm. aussi na ko bomb nag maanaam na bomb comme daal bu yore woon siwo fépp na fa loxoom jaar nag moom mm-hmm. voilà koo kooku après nag bu génnee moom dafay dafay dafay dem jàppi nag moom mm-hmm. voilà mm-hmm. léegi parce que njàpp moom ngay jàpp jàppwaale ci sangu farata bi njàpp moom bu la neexee bu fekkee yéene nga cee julli parce que kenn du sangu farata génn julli déedéet hmm. ah jàpp ma njàpp ma da nga ko cay yéene waaw booy jàpp da nga naan maa ngi fas yéene jàpp jàpp mu sell fas yéene cee julli hmm. jàppal sangu farata boo ci yéenewul julli manoo cee julli boo ci jullee amoo julli hmm. bu fekkee yéene woon nga cee julli nag boo génnee mën ngaa dem julli bu fekkee yéene woo cee julli boo génnee da ngay dem jàppi boo ci yéenee julli ba pare njàpp ma toj ci diggante bi boo génnee da ngay dem jàppi waaw ah, parce que parce que nit ki fii fii fii nii fii wala diggante baaraam yi. Mhm. bu laalee sa awra bu laalee awraam. Mhm. maanaam bu ñu nee awra nag zakra moo tax ñuy wax. Mhm. waaw fii. bu laalee bu laalee awraam wala wala fii. da ngay jàppiwaat jàpp ma toj na maanaam jàppam jàppam jàppam toj na. jàppam toj na bu dee jigéen bu jëlee baaraam bii baaraama bii. dugal ko ci biir awraam. moom jàppam toj na. waaw parce que dañ ne léeg xam nga da ngay jàpp ba pare wala nga sangu ba pare comme ni ñu wax rek nga sangu farata nga war dem sol sa yére maanaam ci bi ngay sol sa yére nga yëg na sa loxo laal na sa awra bi ngay fomp sax nag bi ngay fomp mu ngoog waaw fii daal bu ko laalee ah. wala diggante baaraam bi hmm. moom jàpp la moom toj na kon da ngay dem yeesalaat da ngay dem jàppaat waaw jàppaat hmm. <laughs> kon nag defe naa ne loolu leer na oustaz hmm. euh, dafa mel ni sànq li nga waxoon ne sàng bi nee woon na nit dina julli ba ba ba ba am bejaaw hmm. fekk la mu julli yëpp dara baaxu ci ndax maanaam laabul hmm. du dëgg hmm. kon nag loolu mooy wane ne euh, sangu farat tamit euh, dafa am maanaam nuñ ko du nu ma neex rek lañ koy def nga ko war a defee parce que dafa am nuñ ko nuñ ko nuñ ko nuñ ko santaan sangu nga ba pare nga sol yére alors nga naa dem euh, julli ji waaye nag bi nga solee yére nga julli ba pare nga xool ne yére ba nga ba nga sol ah nga am na gàkk-gàkk boo xam ne nii daal sobe la. léegi da ngay dem jàppi waat wala lan ngay def. yére ba ngay simbi changé yére dem julli ji waat. Ah. waa doo jàppi waat jar ngay jàppi nag moom. Hmm. sobe boo jàpp même boo jàppoon ba pare sobe takk la. waaw tey tey tey tey boo jàppoon tey ku jàpp ba pare. waaw sobe takk ko day raxas sobe ba rek. dem sobe ba lay raxas. sobe maanaam sobe bu génnewul ci yow mënta a toj sa jàpp. Hmm. sobe bu fekkee dañ la koo taqal kase. Mhm. mënta toj sa njàpp. waaw euh, oustaz dafa am aussi tamit euh, parce que nag jàngale moom li ñu naan euh, amul sujet tabou. Mhm. dañuy laajte dafa am luy génn maanaam ci doomu aadama rawatina ma jël exemple ci góor ñi. Mhm. parce que ay ay ay góor lañ. am na lu ñuy wax maanaam maniw am na lu ñuy wax maziw. loolu ndax mun ngeen ñu ci différence ak ban la ci boo xam ne bu génnee moom allah kulli alin boobu dafay laaj nga dem sangu ci. mën yu mhm. xam nga dafa am mën niyu am masi yu am waddi yu waaw très bien kon ñett la waaw très bien waddi yu ndox kas ndox ndox ndox ndox kase lay doon couleur couleur couleur ndox rek lay yor ba ci ma waddi yu waddi yu waddi waaw boobu moom dara dara du la ci war ah boobu bu génnee dara du la ci war ah d'accord masu yu waaw li ñuy wax masi yu mhm. masu yu moom bu génnee euh, mooy mooy mooy gën a yolom mais dina changer couleur tuuti dina xaw a weex tuuti mhm, boobu mooy masu waaw boobu bu génnee boobu bu génnee. Mhm. da ngay dem nga da ngay dem nga raxas ko fa mu fa mu nga ngay dem nga téye fa mu ra fa mu fa mu génne. waaw raxas ko ba mu set. Mhm. nga dem jàppi julli loolu du jar sangu farata. Mhm. mais mën nuyu nag moom mhm. mën nuyu moom moo mooy mooy mooy moom dafa far mën nuyu dafa far weex taal mhm. boobu moom bu génnee nag moom moom moom moom mooy ponkal kon daal ñett yooyu moo am moom sangu farata mooy ñett nga limaat ko waaw mooy mën nuyu mhm. ak masiyu ak wadiyu wadiyu waaw wadiyu mooy bi jiitu mooy mooy bi jiitu mooy mooy bi mooy mooy bi nga xam ne genre ndox la ndox waaw genre ndox lay doon waaw. dëgg la dëgg la boobu moom dara du la ci war. Mhm. bu dee bu dee yu moom toj na sa jàpp. Mhm. mais mais du jar sangu farata. dëgg la bu dee mën ni yu nag moom da dem sangu ji farata. waaw euh, question bi xam naa ne jigéen ñi lay gën a intéressé maanaam ñoom dañuy faral di wax ne man dama am ay perte blanche maanaam am lu yuy génn seen kanam. Mm. loo xam ne nii du du du du du du du maanaam du jëlewuñ ko ci sëy waaye dañuy toog rek di ko yëg muy génn. Mm. moment boobu ñoom dañuy dem sangu wala dañ koy raxas rek te mun a dem. xam nga xam nga am na loo xam ne bu dee am na loo xam ne tey bu dee feebar du jar sangu da ngay dem rek nga raxas jàpp julli mhm. te nga te nga te nga dem faj ko nag mhm. waaw bu dee bu dee feebar la mhm. am na ñoo xam danoo am feebar bu mën yu muy génn daaw am na góor ñoo xam ne danoo am feebar boobu dañuy toog rek seen mën yu te maanaam yëguñu dara waaw te te defuñu dara yi maanaam feebar la quoi dëgg la maanaam feebar la bu boobaa ñooñu kenn du kenn du leen teg sangu farata ñooñu dañuy dem jàppi rek daal di daal di daal di julli waaw loolu loolu defe naa ne oustaz loolu defe naa ne kon daal kon daal euh, maanaam tànk dara génnul daal jarul ngay dem di sangu. waaw tànk mën niyu génnul bu dee góor. waaw tànk génnewul mën niyu mm-hmm. wala muy sëy donte donte donte sëyul sax ba àgg fa mu war a génnee mën niyu ba donte sëyul ba éjaculé quoi. waaw mais mais sëy na daal sëy na daal en tout cas daal yëg na ni dugg na moom sëy na. Mm-hmm. kooku day sangu ci farata. très bien bu dee jigéen bu dee jigéen bu gisee deretu reg euh, deretu reglam ba mu dagg. Mm-hmm. day sangu ci farata. bu dee gisee deretu wasinam ba mu dagg day sangu farata. ah oustaz defe naa ne tey moom moom njàngale mi tey moom <laughs> moom euh, maanaam am na solo trop trop trop trop euh, lan ngay dénk jullit ñi rek maanaam ci affaire lii ñu waxtaane moo xam njàpp moo xam sangu ba maanaam laab daal ma d'une manière générale lan ngay dënk jullit yi waaw xam ne daal maanaam dañ ko xaw a maanaam xaw ma soofantal daal mooy mooy li nu sunu borom waaw dañ ko soofantal in kuntum junuban fataharu yàlla nee na bu fekkee da ngeen da ngeen a ngeen a ñàkk a laab yàlla nee na dem leen laabi bu fekkee da ngay da bëgg a julli te am ndox demal nga jàppi julli ji loolu mooy dëgg bu fekkee dangaa dem tiim wala nga def leneen te te amoon nga ndox julli googu nga def entraînement la su julli gi dara baaxu ci. Mhm. te itam nag euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne nee na. Mhm. maanaam am na ko tëdd ci bàmmeel ñu koy buggal du ñàkk julli du ñàkk a woor du dara ñàkk a ferlu la. lu mooy nga tuur ndox ba pare te maanaam parewul dañu waaw surtout loolu loolu am gis nga nit booy tuur ndox nit booy tuur ndox ngay jël sa temps waaw gis nga benn deux minutes mënoo mm. wala trois minutes mënoo fee tuur ndox jàpp fi julli fi loolu c'est impossible dëgg la nit buy tuur ndox rawatina góor mm-hmm. góor góor moo tax may wax dëgg la góor bu dee tuur ndox góor ay sidditam dafay dafay dafay dafay mel luy lemu day lemu waaw yaa ngi dégg moo tax góor bu tuuree ndox ba pare mhm. comme li ma wax sànq dafa laaj mu ferlu ferlu ferlu bu mhm. ferlu bu mhm. am solo dafay laaj mu ferlu ferlu bu am solo ba mu wóor ko ni lépp génn na ba mu wóor ko ni lépp génn na ba tuuree ndox ba pare boo boo tuuree ndox ba pare boo jógee taxaw siggi def nii siggi nii gis nga nii ma siggee waaw sama biir bi xam nga dafa taali waaw siggi nii defaat nii dox jëm ne doxaat jëm nii maanaam buy dox lépp maanaam fi sobe di génne da koy téye nii ci loxo càmmooñam mhm. yaa ngi dégg mhm. léegi nag bu ko wóoree ni lépp génn na ba set mu àggaat suuf mhm. puusaat tuuti bu bu génnee mu mu mu mu mu mu mu mu soog a mu soog a mu soog kii te te itam booy te itam booy booy wisu boo tuuree ndox bay wisu maanaam doo jël ndox rek sotti ah. ndox mi da ngay tooyal da ngay tooyal sa loxo ba pare waaw waaw sa loxo càmmoñ ba pare mhm. ba sa loxo càmmoñ tooy mhm. nga soog a nga soog a wisu mhm. nit ñi daal li ma leen di dénk mooy nanu fonk laab parce que jaamu yàlla mënta baax te nit ki laabul dëgg la Seydina Muhammad moo ne laa salaata liman laa tahaarata lahu nee na ki laabul mënta am julli dëgg la looy tàggatoo oustaz. waa xanaa di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla na nu yàlla boole defal jàmm. lépp lu ci jub ñu santee ko sunu borom lépp lu ci dëng nag ñu xam ni sunu làmmiñ moo desee fecceeku macha allah salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf euh, oustaz Babacar Dieye imam jërëjëf ci waxtaan mi jëf ci leer la li nga xam ne indil nga ko bokk jullit yi. Euh, ndax defe naa ne sujet bi ñu jël am na solo trop. parce que mun naa wax ne sax dafa jiitu lépp. Hmm. kon nag mbokku téléspectateurs yi bii lañ leen indiloon. ci seen deuxième numéro ci seen émission leerlu ak oustaz Babacar Dieye ñu jox leen dig daje beneen yoon sur le même plateau sur la TMS TV